yéenekaay groupe Rewmi Network bi ba tey ñu ngay fësal kàdduk Abdou Karim Fofana Aïssata Tall Sall naka noone Anat Seck Ndiaye ñi doon janoo ni ki démb ak taskatu xibaar yi mu mel ni ab grand oral lañ doon def wax nañu ci xew-xewu jamono rawatina ci tas parti Pastef waaye tamit bis bi nga xamante ne moom la ñu jàpp ne dañ ko attaqué woon ca yaraax moo tax daal Sud Quotidien jàpp ni gouvernement bi ni ki démb lépp la ñu wax yéenekaay bi di fësal li nga xamante ne moom la Abdou Karim Fofana mi yor kàddu gouvernement bi daal di xamle Pastef dafa nekkoon luy màndargal li nga xamante ne moom mooy fitna ci réew mi ci coowal nag bis tata bi ñu attaqué woon ca yaraax ba ñu bëri tàmbale ci am ay jixi jaaxa gouvernement bi nee na ñi nga xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu xam nañ leen ba noppi waaye ci ndiw yi moom ak anam yi nga xamante ne moom la ñu bindoo jafe na lool ngir ñu mën leen a identifier identifier nañu ba noppi ñi nga xamante ne bokk nañu ci attaque boobee xewoon ca yaraax le soleil yéene kay di xam leen ni toll nañu ci fukk ak ñaar ni ay suspect yi nga xamante ne teg nañ leen loxo jamono ji ci ñoom njort nañ ni bokk nañu ci li nga xamante ne moom mooy attaque bi xewoon ci talaata gi fañ leen tegee loxo nag diggante Yoff Kër ma Massar Rufisque ak Yëmbal la wax na sax turu ñi nga xamante ne ñooy ña ca faatu di Fatoumata Binta Diallo ak tamit Oumou Diallo dëggal ni kon ñoom ñaar ñëpp ay soxna lañu kii ab waxambaane la tamit bi ñàkk bakkanam ci anam yu doy waar libération moo di kaat ci coowal Serigne Saliou Mbacké Touré mi nga xamante ne anam yu mu faatoo daanaka ñaari version lañ ci am ministère de l'intérieur dafa jàpp ni bi yoroon scooter dafa doon jéem a daw contrôle takk der yi waaye anam yi nga xamante ne moom la ko defee moo tax mu daal di ñàkk contrôle ba def ab choc mujj ñàkk bakkanam waaye ay mbokkam ne ko déet weddi nañu kàddu yooye nga xamante ne ministère de l'intérieur moo ko wax ñu ciy jëm baaraamu tuuma gendarmerie mi ñu jàpp ni kon ñoo jël xeer sànni ko dal bi métti lool mu daanu ñàkk bakkanam ndaw Ziguinchor ñàkk guñu seen xeex source a dikk na ci li mu jàppee ni mooy gox bu mujj bi nga xamante ne ma ngay wéyal résistance am ngir Ousmane Sonko bokk na Lindiane Colobane nga xamante ne foofu ndaw ñi taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko jaaxal na sax ñi di takk der yi police ci boppam jàpp ni anam yu ñuy xeexee ak jumtukaay yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo dañoo njort ni am nañu njàppandal way fépp yu bokkoon ci MFDC moo tax ngir ñu daal di xuus dem ci diwaan yooyu lu jafe la état moom ma ngay xuus jëmale ko ci Ousmane Sonko ak yi jege ñaaleem yi nga xamante ne ñu ngi leen di teg loxo gannaaw ba mu jëlee dogal tas parti Pastef le quotidien yéeni jàpp ni ji ci boppam jamonoy fay la ñu nekk ku ci mel ni Bentaleb Sow Toussaint Manga am nañu mandat de dépôt te kii di Abass Fall moom ma ngay waaj a ñàkk poste premier adjoint au maire bu ville bu Ndakaaru réew mi quotidien di ko dëggal muy xam ne ni Abass Fall moom jamono ji ci ndég tépp la taxaw ndax li ñu war a falaat adjoint au maire yi ci ville bu Ndakaaru te boo moyul moom kàngamu Pastef bi dina ñàkk ab toogam Pastef moom ñàkkagul ndax yor-yor mu ngi ñuy xamal tey nii kii di maître Ngagne Demba Touré ak Ousmane Diagne jamono ji ñoom ñoo ŋànk xeex résistance patriotique bi résister ñu ngi ci APR wala sax Benno Bokk Yaakaar muy Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye ak ñoomi seen nga xamante ne ku ci nekk bëgg na doon candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection bi ñu dëgmal L'As Quotidien di ñu xamal ni yëf yi ba fi ñu toll dara leeragu ci Walf Quotidien di ko ci feelu jàpp ni jamono ji tembe li xew ci Benno Bokk Yaakaar dafa sax jaaxal njiitu réew mi Macky Sall li ko waral nag yéenekaay bi di Les Échos mu ngi ñuy xamal ni déggoo amu ci coowal primaire sax jiboon na ci waaye dañu ko jël teg ko ci suuf lii gën a fii moo ni Mansour fay kenn xamul fu mu tëllee démb ñëw ne moom dina doon ab candidat Mansour fay fëll waaye dañu ko yemale te ki ko def mooy njiitu réew mi Macky Sall moom Macky Sall ci xët bu njëkk la tribune mu mel ni tànneefam ma ngay jëm ci Boun Abdallah Dionne jàngat bi suñu naataango yi jàpp ni moo ko waral mooy limu mu xaatimloo kii di Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Ba ab charte bi nga xamante ne dina tax ba du ñu mën a fippu li jaaxal tamit la tribune mooy Aly Ngouille Ndiaye mi nga xamante ne ba léegi teeweewul benn yoon ndaje bi ndaje bi tàngoon jip démb ca palais de la république bu ñu sukkandikoo taxoon na sax ba kii di Matar Cissé mi nga xamante ne kenn la ci candidat yi dafa mujj gedd génn saal bi ni yëf yi jaxasoo démb ba ñu gàntal sax charte Benno Bokk Yaakaar kandidaa yi jamono ji L'Obs dañu xamal ni bëri nañu lool ndax toll nañu ci fukk ak benn moo tax njiitu réew mi li mu sàkku mooy ñu daal di samp ab kor électoral ngir mën a xaajale candidat yi ci seen wàllu boppa ba noppi moom Macky Sall mujj gi dafa leeral ni tànneef bi ci boppam la mënatul looloo tax sax jàpp ni moom njiitu réew mi Macky Sall bi ñu ko jébbaloon li ñu jébbal Macky diis lool ba tax ëmb bi moom ngir mu moo ni jàngatee ndax ba léegi suñu naataango yi dañu xam ne ni bennoo mi nekk ci utum candidat dina jafe lool ngir déggoo daal di ci am ndax démb ci biir ndaje bi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall nako na ne Moustapha Niass Aminata Mbengue Ndiaye ñoom ñëpp teewee nañ ko demoon nañu sax ba wax ay waxu primaire laataa ñu koy teg ci suufa ndax dañoo jàpp ni diir bi gàtt na lool ba def fi ay primaire du fi xej Macky xalifa ak Karim Wade fës ci xët bu njëkk bu le mandat yéenekaay bi di xam ne ni dil bi nga xamante ne ñoom ñett ñi sekkoon nañ ko ci njeexitale bis bi la lépp fas yéene leer léegi leer na te Dakar noppi na bis bi la jour moo ko xamle muy wax ci intervention bi nga xamante ne armée bu Sénégal fas yéene na ko def ca réew Niger ànd ak waa CEDEAO Aïssata Tall Sall jëwriñ ju ñu dénk biti réew moo ko daal di xamle ni ki démb bis bi di ñu yëgal ni doomu sénégalais yi nekk ca ci boppam jamono ji gerte la nekk ndax jamono ji ci tiitange dëgg la ñu nekk tiitange am démb ci aji tukki yi nekkoon ci benn vol Air Sénégal Libération di yëgal ni roplaan bi doon wutali New York anam yu doy war la décollé niki démb ci aéroport mu jur tiit ak njàqare ci ñi nga xamante ni ñooy aji tukki yi ci wàllub tàggat yaram stade quotidien mu ngi ñuy xamal ni Sénégal démb wane na doole dëgg ci kanamu ñii di waa Mali ci demi-finale bi ñeel Afrobasket 2023 bi sunu gaynde yi démb daal di doxantu ci kaw Mali